moo xam mutamayis la ni ki al yawma xam nañu ko waxtu wi fu mu daleeg fu mu yem wala mubham la ni ki boo nee sirtu hiinan wala jalastu hiinan wala saatan kon mubham ba ak mubayyat ba ñoo ca yam waaye nag bu dee mag sarfu makkaan la wa maa yaqbaluhu du nangu nasabug zaraf googu al makkaanu li nga xam ne moom makkaan la illaa mubhaman lu dul muy lu ñu lëm naxwul jihaati ni ki asmaul jihaati fawq ak taxtu amaam wara mubham la ndaxte kenn mënu la ni fii dong moom la ndax foo dem mën nga ni amaamal bayti fii mën nga ni amaamal qaryati fële mën nga ni amaamal bilaadi fële kon amaam mubham la wa maa yaqbaluhu lmakaanu illaa mubhaman bu dul mubham rek dégg nga naxwul jihaati wal maqaadiri wa maa siiqa wala la ak leneen loo xam dañ koo tëggee min al fiili ci fiil ni ki masdaru mimi yi maanaam zarafas mimi kam mar man ab sànnikaay nga xam ne ña ngi ko tëggee ci rama sànni na nga tëgg ca mafalun nga ni mar man ab sa palaasu sànnikaay wala maanaam dégg nga maanaam kooku suyee boo nga jublu ci place wala makaan su gannaaw da nga koo tëggee ci fiil waaye nag dana la ni wa chartu kawni daa maqiisan an yaqa zarfan lima fi aslihi maahu tama nee na mas li ñu tëggee ci fiil ni ki mafalun min marman min rama chartu kawni daa maqiisan sartu nekk lii mas mafal bi ñu tëggee ci fiil muy lu ñu xiyaasu toujours mooy an yaqa amu tabbi mu dal mu ñëw zarfan doon zaraf lima ñeel amil ja nga xam ni ijtamaa maahu dafa dajaloog moom fi aslihi ci cosaanu listiqaaqam ni nu waxee marma ku ne xam na ni ña ngi ko xare ci rama ram yu rama ak marma yëpp ñoo daje ci ci cosaan yëpp ci ram yu la ñu leen xare du dëgg kon da nga naan ramaytu marma zaydin waaye doo mën a dikk naan jalastu marma zaydin loolu déedéet ni nga mën ni jalastu inde zaydin ah mënoo ni ramaytu marma zaydin loolu nga wax waaye doo ni jalastu marma zaydin nee na sartu pour pour mu doon xiyaas de amaa leneen loo dégg lu dul loolu ni ki maqadul xaatini ak masjirul kalbi dégg nga jalasa indahu maqadal xaatin kooku moom dégg nañ ko ci arab wala huwa min nii masjarul kalbi huwa min nii maqadul xaatin suñu bëggee ni wax dafa ma jege lool ñu ni huwa min nii maqadul xaat maqadal xaatini maanaam toogukaayu koy xarafal gone kuy jongal gone da nga koy jege lool di du dégg ñu ne arab def ko masal ci jege ñu naan huwa min ni maqadal xaatin ma jege na ma torop ka annahu qaala yajlisu min nii su fekkoon dafa ne nag yajlisu yaqudu min nii maqada waaw kon mu xiyaasu waaye waxuñu ko dañuy huwa min nii maqadul xaatin mathalun fi l qurb huwa min nii masjirul kalbi mathalun fi l bu'd kooku nag loolu moom dañ ko dégg chaaz la nde mafal lañ koy balay mën a xiyaasu daal amil ji koy nasab jooy bokk xarukaay ramaytu marma zaydin jalastu majlisahu qaadtu maqaadahu maanaam zamanal quudihi wala makaanu quudihi wa chartu kawni za sartu nekk lii ñu xare ci feel maqisan doon lu ñu xiyaas pour mu doon lu ñu xiyaas day sart ba mooy añ yàq amu dikk zarfan doon zaraf lima ñeel amil ja nga xam ne ijtama maahu bokk dajaloo naag moom fi aslihi ci cosaanul istiqaaqam niki marman min rama wa maa yura zarfan wa gayra zarfi fa daaka du tasarrufin fi l urfi wa gayru di tasarrufi alladi lazim zarfiyatan aw shibha min alkalim maanaam saraf ñaar la am na saraful mutasarrifa am na surufu gayril mutasarrif li ñu aada woo tudde saraf suy soppadiku mooy loo xam ne léeg-léeg mu doon saraf ni ki yow sumtu al yow léeg-léeg mën na doon bañ a doon saraf nga daal di ko defu mubtada rek al yawmu xaarun wala nga doon ko mafool bihi ittaqu yawman yajalu sibyaan wildaana shiban wala leneen nga daal di ko def majruur aywa loolu xam ne day mën a doon saraf mën a doon lu dul saraf ah kooku mooy saraf moom la ñu tuddee suruuf suruuf al mutasarrifa wa maa yura lu ñuy gis sarfan muy saraf léeg-léeg wa xayra sarfin ak lu dul saraf fa daaka loola am loo tasarrufin moom la ñu tuddee saraf buy soppandiku fil urfi ci aaday ahlu naxwi ñoo sàkk saraf suruful mutasarrifa wa xayrul mutasarrif wa xayru zi tasarruf ba dul boroomu tasarruf nag allazi mooy saraf ba nga xam ne lazima day taqoo zarfiyatan maanaam nasabu ci kaw zaraf dong aw shibaha wala boog lu niroog lu demee na zarfiya dégg nga wa xayru zi tasarruf min al alladi mooy la nga xam ne lazima zarfiyatan ni ki baatu inda maanaam taqoona zarfiya aw shibaha wala lu niroog zarfiya te mooy linjiraaru xarf bi min xaasatan ni ki inda inda day nasabu ci zarfiya faw waaye nag arab dana ko jare min dong maanaam ni ki mulxani wa inda fiha nasbu yastamiru lakinaha bi min faqat tujar min nag man nga ni min indihi loolu kon inda min assurufi almutasarrifati maanaam xayri mutasarrifa kooku saraf rek la xayru mutasarrif ndaxte ba muy génnal nasabu ci sarf ya xaal bu ko jege dong la tabbi te mooy jarru bi min xam nga jaar ak majruur saraf ñaari mbokk lañ kooku inde kon mën nañu koo lim ci suruf yi du mutasarrifa donte danañu ko jar ak min yi mutasarrifa nag moo mel ni yow mu bu la neexee def faayil bu la neexee def mubtad waaye inde kenn du gis muy faayil kenn du gis muy mafool bi kenn du gis muy dara nasab ala zarf ya bu ko génnee jar ak min képp loolu nag génnewu ko zarf yi wa qad yanuubu an makaanin masdaru wa daaka fi zarfi zamani yaksiru wa qad yanuubu mën na remplacer tuuti masdar an makaanin wala remplacer zarfu makaan masdar danañu ko jël léeg-léeg mu remplacer zarfu makaan ndaxte maanaam masdar dafa jege jamono torop nag waaw da maanaam jege na jamono te jegewul makaan moo nga naan jalastu qurba zeydin xaruba qurban du qurba masdaru xaruba la ñu di ko def zarfu makaan jalastu qurba zeydin wala yë nga ni jalastu makaanan qariban min zeydin muy ñuy bu muy zaraf dëgg-dëgg nga ni jalastu qurba zeydin masdar mi nga di remplacé na loolu dana am xadd la wax bariwut wa zaaka loolu remplacé ak masdar zaraf kooku yaksuru dana bare fi zarfi zaman li qurbi maanaahu min az-zaman masdar dafa jege jamono torop darb dóor ah bu amee faw ci biir jamono la am loolu moo tax masdar remplacé zarfu zaman moom mën na bare dégg nga atta danañu wax intadartuka xalba naaqa xaaru naa la rëttug naaga maanaa zamanan yasau xalba naaqa jamono boo xam ne ratt ak naaga xaj na fi arab moo ko daan waxe ñoom ñi seet minute yi ñu war a ratt naaga nu mu war a yàgge ba tax léeg-léeg ñu naan yow fulaanun intadartuka xalba naaqatin seetal xalba mel ni ku ni intadartuka zamanan qadruhu kada moo tax maanaam kon daal masdar dana remplacer zarfu makaan tuuti waaye mën na remplacer zarfu ma zaman lu bare bare bare almafoot wal mafoolu maahu ci mafoolu muqayyada yi la bokk ah kooku nag moo di lisim ju ñu nasab joo xam ne waawu yor maanaam maa moo ko fokk moo koy dawlu waaweet fokk jumlaa koy dawlu te jumla ja fokk jumlay feel lay doon wala lu yor maanaam feel ak i xarafam loolu kat mooy xaddu mafool maahu lisim ju ñu nasab waawu yor maanaam maa koy jiitu te waawaat ci jumla lay topp jooxaani bu dul jumlay feel yor na maanaam feel ak xarafi feel su leneen amee mu doon lu néew nag ni ki kayfa anta wa qasatan min sarid kayfa anta lisim sarix la doonul yorul maanaam feel ak xarafam kooku nag kon du xiyaas moom yum sabu def na nasab taalil waawi lu topp ci waaw mafulan maahu mbir mu muy maful maahu waaw wanee naa na yor waanaam maa na ko jumla fii nax wi ci lu mel ni nga ni siir yi doxal yow ndaw si wa tariqa ànd ak yoon wa siir yi kooku jumlay fi'l la ah du fi'l ak faa'il la siir yi doxal yow ndaw si wa tariqa ànd ak yoon wa musri'atan mbir mu nga di aji gaaw wa tariqa maful maahu lan moo ko nasab بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا الواو لا بالواو في القول الأحق أما تي نحو يونا نيني واو جاكو واو جاكو نصب لولو نك ضعيف قول الأحق الأثبت صحيح مويني liko dawlu te mooy fi'l ji wala lu niru fi'l li niki bonoon séeri wala an ana sa'ir anta sa'irun ismu fa'il niru na fi'l ñoo bokk listiqaam lii fi'l ji wala lu niru fi'l daal moo ko nasab waaye waaw yi nasabu ko loolu weddi na ko waqad xiila ba'du nahwi yi la nee ñu waaw gee ko nasab moo tax mu ne zan nasbu gileeg nasab bi ma aji amee la ca la nga xam ni sabaqa jiitu na waaw wa min al fi'li wa shibihi ci ba nga ne sirtu wa tariqa wala ana saa'irun wa tariqa laa bil waawi du jegeeni wax wa fil qawli al ahaq ca wax ja gën a dëggu wa baadama istifhaami naw kayfa nasab bi fiili kawnin mudmarin baadul arab li nga xam ne nag moom moo barewul te am mooy lu mel na seen wax ñu naan kayfa anta wa qas'atan maanaam maa qas'atin min tharid dégg nga wa ba wala ma anta wa qas'atan wa ba wa baadama istifham wa nasaba nasab na ngay wax baadul arab yenn arab ci catal way nasaba nasab na yennul yenn arab bi fi'li kawnin mudmarin ci feelu kawnu bu ñu xadaf xaare ci kaanaag yooyu benn arab nasabe na ko mafool maahu baadama istifhamin ci gannaaw maamul istifham wala kayfay listifham nasaba baadul arab mafool maahu بفعل كون منمر بعد ما استفهام ولا بعد كيف نكي كيف أنت وقصعة ما أنت وما أنت والسير في متلف يبرح بالذكر الضابط قوما نقوي وهم دنجا تعطف إن لم إن يكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النصب من أتف بي in yumkin su fekkee ma ngi jàppandi bilaa do finte benn faiblesse ci arabiya nekku ca kon a xaqu moo gën a yell nasab gi ci maf'ul ma'ahu nga ni jaa zaydun wa amrun loolu moo gën yobb qad amkana bilaa do fin moo gënoon nga naan jaa zaydun wa amran du dëgg ñu naan taawil naan waawi bi maanaa maala ak yooyu wa nasbu nasab ga nag muxtaarun lu ñuy tànn la gannaaw yëpp dagan nan ataf gi dagan nasab gi dagan waaye nag la daa do fi nasaqi ci waxtu woo nasaq at fu nasaq ga di faiblesse kooku moom nasab ga la ñuy tànn la koy faiblesal mooy su fekkoon ni da nga ni jiitu ñëw naa dégg nga wa zaydun dagan na de waaye daif la ci arabiya ndax ibnu malik dana wax ca kanam ni وإن على ضمير رفع منفصل متصل عطفت فافصل بضمير منفصل nee na su fekkee ni damiru rafa bu jokk da nga caa bëgg a ataf leneen bul ko def lu dul nga tawkiit damir bu ra bu ñu rafa ba ci beneen damir munfasil diggante ba door a ataf ndiki boo noon jiitu ana wa zaydun kon dana rafet waaye jiitu wa zaydun rekk daal rafetut kon ataf gi day door daif loolu mooy wa nasbu muxtaarun la daa do fi nasab mu ne nag wa nasbu nasab gi illam yejus su daganul ataf gi yejibu kon day war kon soo mënee nasab nasabal baytu bu mel ni alaftuha tibnan wa ma an baaridan nee na tànn ko nañ ci nasab waaye maanaam at bu li tax tànnunu nasabam ndax ataf gi munta am da dagan ndax alaftuha tibnan gannaaw boo mënoon ne alaftuha ma an li anna al atfa ala niyati takraaril aamil boo atafee boo ne jaa zaydun wa amrun dafa mel ni ni nga ne jaa zaydun wa jaa amrun nga bëggoon a wax da ngaa takraar aamil bi ci niya kon alaftuha tibnan wa alaftuha ma an ah ñu ne la ah waaye maaw kat mooy ndox rek ndox nag du ñam alaf moo maanaam bi manzilati taam kon nag kenn du ni diw xonte naa ko ndox kenn du ne xonte naa diw ndox maanaam leel naa ko ndox ci nit kon fasit doone xonte naa ko ndox ndox du doon xont kon eh, ataf gi munta am aywa ñu ni kon nag mafool maahu la ñu ni waaw waaw de waaye nag leneen a ngu ci ndax soo ne dama koo jox tibnan maa maa in waaw yi waaw maa la kon itam tibnu est ce que des na ko jaxaseeg ndox ci ndab di jox ko déedéet ngooñ kenn du ko jaxaseeg ndox kon daal maxraj bi mooy alaftuha man nañu ko amaana wa maa an dañu ko awit moom la ni aw yataqid idmaara amil wala nga fas ni dañoo nëbb amil jëko nasab maanaam alaftuha tibnan wa saqaytuha maa an kon kooku saqaytuha moo ko nasab waaw loolu leer na waaye geneen tawi la nga fa goob mën a nekk mooy su fekkoon ne da nga ne alaftuha tadammanat maana aataytuha rek su ko defee yan sabu alayhima maan moom jooju aamil nga ne aataytuha tibnan wa maan mu wér ba de lu ci ne des koy jox bàyyi ma yooyu yaar benn nga idmar aamil ni ndax taqdiran saqaytuhu maan ndax ataf gi li ma la wax moo ci ne wala nga ni alaftuha la ñuy taawil bi maanaa aataytuha fa yansabu alayhima maan kon mën na dal ci kaw ñaari maamul mafool yëpp waaw léegi nag al istisna moo di génne loo xam ne bu dul woon adaatul istisna bi mu dugg ci ba nga ne jaa al qawmu illa zaydan bu dul woon illaa ji sayd dugg ci xukumul maji dugg ci biir ñi dikk ñi naka noonu soo ne maa jaa al qawmu illa zaydan maa jaa al qawmu génnee nga leen illaa ji nag tax zayd moom maanaam dugg na ci dikk maa jaa al qawmu illa illa zaydan mbaa illa zaydun sayd dugg na ko ñëw na kon dugg na ci dikk gi nit ñi ñoo ci génn haka maanaam ixraaju maa yutawahamu duxuluhu wala idxaalu maa yutawahamu xurujuhu yooyu mooy il istisna lawla al adaat mastasnat lu setti illaa ma tamaamin ànd ak tamaam tamaam bu ñu ko waxee ci bunt bi mooy mustasna min huma tudd nañu ko ba noppi ni ki misaalu bi nga ne jaa al qawmu dégg nga wala maa jaa al qawmu kon tudd nga ko door a wax illaa ma tamaam ànd ak tamaam gi mooy mustasna minhu ñëw na loola yantasibu dafay war a nasabu du dëgg su fekkee moojëb la waajib la moom nasab gi boo ne jaa al qawmu moom illaa zaydan nasab gi rek a war sa mënoo fi ni illaa zaydun mu ni nag wa baada nafyin su fekkee listisna gi dafa dikk ci gannaaw naf yu niki da nga noon maa jaa al qawmu door ni illaa aw ka naf yin wala lu mel ni naf yu te mooy benn istifaamu linkaari wala yooyu dégg nga kon untuxi ba tànneef na idma itbaau mattasala tofal loolee ca jokku mustasnaama mu nekk badalul baadi min al kulli bi nga ne maa jaa al qawmu kooku wax illaa zaydun la ñu tànn su ko defee zaydun badal la ci xawmu rek illaa ji deful mel na na ku deful dara la dégg nga kon untuxi ba itbaau mattasal ndegam mustasna mi muttasil la nag ndax loolu mën na nekk muttasil mën na nekk munfasil bu fekkee munfasil la ni ki maa jaa al qawmu illaa ximaaran kooka nasab ga moo gën du dëgg kon nasab gaay gën def ko badal du gën illaa ximaarun loolu dana am waaye illaa ximaaran nag moo gën ndax ximaar bokkul ci jinsu naas dégg nga waaye teewul dagan na ndax li siddati ittisaalihi tax na mën nga ko ci dugal ba di ko seeti waaye kon nag nang ko nasab te bu ko def badal wan si nasabal maanaa bu ko bu ko def badal wansib nasabal man xata ala dagg ni ki ximaar munqatiun an innaas ay laysa min jinsi daas lu dëgg yéen a ngi dégg untu xiba tànn nañu itbaau mattasala ni ki maa jaa al qawmu illa zaydun it tofal gi mooy lan def ko badal ci xawmu badalul baadi min al kull loolu mooy itbaa gi wansib nasabal man qataa li nga xam ne mustasnaama bokkul ci jinsu mustanaama ni ki ximaaru ci naasu nga ni maa jaa al qawmu illaa ximaaran loolu moo war suñu ko nasabee li siddati luzumihi maanaam suñ ko defee doon defoon badal kooku dafay sore te day ñaaw itam wan xisib man qata mu ni nag foofu ci mun qate nag wa an tamimin fiihi ibdaalun waqa bani tamim nag waqa a tabbina ibdaalun ak badal mbar wala mu ibdaalun mubtada la waqa a xew na fiihi ci mun qate an tamimin mbir mu muy jóge ci bani tamim ñu nettali ci seen wax maa jaa al qawmu illaa ximaarun kookoot li ko dagana la kës néew siddatu tisaalil ximaari bil musaafiriin dañuy sëf seen mbaamu war bu ñu ñibbisee nga ni nit ñi de dikk nañu lu dul menn mbaam moo des waaye bu dul woon loolu sax loolu du dagan mukk wa xayru nasbi saabiqin illaa wa xayru nasbi saabiqin fi nafi qad yaati walakin nasbahu xtar in warad wa xayru nasbi saabiqin lu dul nasabu mustasna mu dawlu dégg nga day mu dawlu mustasna minhuma mustasna daal su fekkee dafa dawlu mustasna minhu dañu lay wax ni nasab dong moo cay war ci mboolem xeet yi moo xam moojibu taam la wala manfiyun taam la dégg nga ñoo ci yem su fekkee ni nag dafa mujj nekk palaasam soo def su dee moojëb nasab gaa war ni ki jaa al qawmu illa zaydan su fekkee man fiyu la xarafu dàq ak lu ko mel dafa jiitu kon def badal mooy gën def badal mooy gën su fekkee dangaa rafaa woon mustasna minhu ci maa jaa al qawmu wax illa zaydun mooy gën a rafet maa faaluuhu illa qalilun minhum gis nga ni ko alquran rafet nasabe rafaa ndax faaluuhu fi'l ak faayil waaw wi mooy faayil du dëgg illaa qalilun muy badal ci waaw yi moo gën ah mu ni nag su fekkee dafa dawlu moom nasab rek a ca war ñu ni ko ndax maseesu ko dégg mu ne ndax mënees na koo dégg xayru nasbi saabiqin lu dul nasabu mustasnaa mu dawlu la dul nasab ga mooy la def ko badal rafaa ko xëy na fi naf yi ci biir naf yu xat yaati mën na dikk dana dikk rek xat bu àndeeg mu daare o tegtale ne ni lu néew am la walakin waaye daal ixtartaanal nasbahu nasabam in warada na in warada ñëw na mo ni ki baytu xasaan ida lam yakun illa annabiyuuna shaafiun ida lam yakun shaafiun illa annabiyuuna illa annabiyina kay moo rafetoon foofu nasab gi moo gënoon وما وما لي إلا مذ مذهب مذهب مشعب الحق مذهب أيوة دقة وما لي إلا مشعب الحق مذهب كوكا فكور النصب وما هي مذهب إلا مشعب وما لي مذهب إلا مذهب غناو دفا داولو دنج ورون نصب دار وينك وما لي إلا مش mashab nga def wala madhab mashab madhab wa maa hi liya illa madhabu lxaqi madhabu maa liya madhabun dafa waroon ni illa madhaba alxaqi madhabun gannaaw dafa dawlu mu ne lu dul nasab gi te mooy bëgg rafaa gi mën na am de waaye tànnal nasab ga boo ne illa madhaba ak illa nabiyina ci ñaari bayti wa maa liya waaw waaw bat waaw wa maa liya illa ala ahmada chiatun waaw wa maa liya chiatun illa ala ahmada kon nag nasab gi noonu moo baax wa maa liya illa ala ahmada chiatun wa maa liya illa madhab alxaqi fokk boo ne illa madhabu mbaa du doon shahid dafa ni lu dul nasab gi dana dikk waaye nasab gee gën lu dul nasab gi nag mooy rafa wa in yufarra saabiqun illa lima baadu yakun kama law illaa udima wa in yufarra bu fekkee dañoo féexal te féexalkat mooy da nga tudd amil ji niki maajaa a rek daal di gaaw andi mustasna mustasna minhu mu dikkul ni ki yow mu bëgg ni maa jaa illa zaydun rek yem fa kooku mooy tafriq li anna al aamila faariqun lil amali bima baada illa fa yakunu illa mulgaatan fi li arab wa in yufarraq suñu feexalee saabiqun aamil ju dawlu illa illa mafoolu saabiqun la de ma mooy man fii daaqis ah ci waxinu wolof man fii naaqis bu ñu nee man fii ta moo jëbu taam ak man fii taam man fii naaqis man fii naaqis mooy mu farrax rek tudde nañu ko mu farrax li anna al aamila faariqun lil amali bi ma baada illa fa yakunu illa mulgaatan fi xukmi l irab du laa yuta la atibaara lahu fi l irab moom illaa ji ndaxte li faraaxi l aamili lil amali bi ma baada illa wa in yufarrax suñu féexalee saabiqun aamil ju dawlu illa illa lima baadu pour mu mën a jëf ci li ci gannaaw illaa kon illaa moom mel na neetu fa kon yakun day nekk moom loola kama law udima illaa comme bu bu fi illaa nekkul woon rek nga ni maa jaa zay illaa zaydun zaydun faayilu jaa la illaa ji def fi dara maa marartu illaa zaydan illaa def fa dara marartu mooy moo nasab zaydan muy maf wala mel ni yow mu noon marartu zaydan wa ma maana dara wa ma darabtu illa zaydan wa ma maratu illa bi zaydin nga xam ni illa ji def fi dara bi zaydin ma ngi aju ci maratu comme yow mu noon maratu bi zaydin kon da bu ñu tafriixee amil ja jiitu illa mu mën a joti lima baada illa ci jëfam kon yakun day nekk kama law udima kama law illa udima ay kama law udima illa doonte illa dañ ko ñàkk nekku fi ñooyam wa alxi illa zaata tawkidin kala tamru bihim illa alfata illa al ala soo nee tey maa jaa al qawmu maanaa maa illa bu fekkee dafa dikk di di feddali nga xam ne du lan lan list ndax yaar mooy am ci listisna tawkid wala tasis tawkid mooy illaa ji deful lu dul amu fi beneen maanaa génnee aatu leneen ndéem dëgg doon génnee wala taasiis nag mooy istisna un baada istisna nga xam da nga ni maa jaa al qawmu illaa zaydan illaa bakran illaa xaalidan du dëgg kooku illaa ju ci ne dafay génne bu fekkee illaa nag mu akkid rekk la ni ki laa tamrur bihim illa al fata illa al ala laa tamrur bul romb bihim ci ñoom illal fata lu dul waaja illal ala te mooy ala rek illaa ji deful dara ala badal la ci fata xamuloo kon illaa ji dafa tawkiid rek kon nang ko fa huwa mulgaatun fal ala badalun min al fata laa tamrur bihim illal fata illal fata lu ñu nasab la ci setti aywa ala it badal la ci fata ñu nasab ko ni ñu ko nasabe maanaa ala dana doon turu arab ala ubnul hadrami ba tey maanaa zul ala kay zal ala kay boroomu kawe bi xasfil mudaaf ilayhi ba tey wa nahaaruha wa illa tuluu shamsi summa gurubuha xiyaaruha mooy gurubuha xiyaaru shamsi mooy gurubuha waaw illa xam nga dahru wa ma dahru illa illa laylatun wa nahaaruha wa illa tuluu shamsi tuluu shamsi mooy maanaa nahaar xiyaaru shamsi mooy maanaa leyl ah waaw kon su ko defee illa dafa nekk ba ko loolu badal wa ma illa wa ma hali dahru illa laylatun wa nahaaruha mooy tuloo shamsi wa gurubuha kon yoo ko badal la rek wa alxi illaa dégg nga wa in ya illaa rasimuhu wa illaa jamalu ma laka min cheikhika illaa illaa amalu illaa rasimuha wa illaa illaa rasimuhu wa illaa ramalu waaw amaluhu maanaa rasimuhu wa ramaluhu badal la ci illaa ji jëriñul dara wa in tukarrar laa li tawkidin fa ma tafriqin ittaasira bil aamili da dégg nga fi waaxidin min ma bi illastusni wa laysa an nasbi siwaahu muxni wa in tukarar suñu baamtoo laa laa li tawkiidin te nekkut pour feddali comme yi nu doon wax bal listisna in baada istisna in ah ni ki maa qaama alqawmu illa zaydun illa bakran illa amilan xaalidan illa bu boobaa kenn ku ne dafa seeti kon nii ngay def benn muy mu farra wala muy dégg nga man fii taam lu dëgg wala moo jëb taam yett rek la su fekkee dañoo takraar illa